yaa ngi leen nuyu di leen ziar yéen ñi suivre World Sport ñu war a ñëw ci benn onze probable boo xam ne euh, dana woote bu baax onze yi teg ak onze bi ñu joxoon tey benn onze boo xamante ne bii na dañu bëgg may ay quelques boy yoo xamante ne bii na euh, championnat Afrique bi nekk jeu bëgg tamit utiliser Sadio Mané boo xam ne bi nga ko tegee da nga gis Sadio bu football fool bu rëy da nga gis tamit Sadio bu yor max bi mais laataa ñuy ñëw ci loolu dañu wax yéen ñi gan ci page bi ngeen abonné tenga bas ko notification bi pour ngeen vidéo o taral fi ci Sen Sports sama gaay yi comme ni ma gisee ka Fatou 4 3 3 la ñu ban 4 3 3 nak bu dee ci kan yi da ngay fini je ndax franchement kër moo dugg gannaaw kër nag mooy ko temps de te mo gëne nek nekk nga atlet nga taxaw tay mee ko temps de jeu ndax mooy Moussa Kilissi ngeen di Koulibaly ci défense bi ak Moussa Niakhaté ñu nekk ñaari central yoo xam ne franchement keroog ñoo jeexal max bi te max bi ndax euh, Moussa Niakhaté mi nekk Premier League dafa def ay max yu rëy rëy latéral Sabali amul dute ba fi ñëwee ba léegi day wane boppam def ay max yu rëy ci offensive bi di marqué di passe ay euh, fraîcheur am solo ay ci ci max yi nekk fi nga xam ne mooy tëngee AG nekk champion Sénégal bi. xëy na dana dif si fu mu dugg ndax ay yeneen boy gën a taxaw ñu fi ne mais nga may ko temps de rek pour ñu xool booy ni ñu xool si championnat Sénégal bi ak ba xam niveau bi dana koy yéegal ba xam danaa wane tamit loo xam ne bii dana tax xel ne suñu jëloon suñu booy Sénégal yi war nañoo mën a football rek ay équipe Afrique yi dajal fii ci Coupe d'Afrique wala ay qualification ndax yooyu yëpp dafa maam dañoo war a jaay championnat bi mais tere bi euh, nga am jolle bi na gande amul dute jolle bi ngay ni gene pamara sar pour may jolle bi tas na xalé bu nek france ma koy toj man lu muy def nga won sénégal ni amna na espoir yo xamne wara ñu mëna équipe nationale sénégal bu ñu ñaar bu nek ñay nel mëna liggéey xéc bi nga am saay maay 10 xamne moy porte balle du dribbler def ay def ay dernier passe yi euh, nga am ci attaque pointe lay dia ak centre gauche pa Ousmane Sakho droite man Ndiaye bo dé nga am ada pa Ousmane Sakho bu doxé man Ndiaye dox